yen yen seen bop yen wara dugg ci bir nek non kap kap mooy moom mooy moom mooy euh, kii mom mm, mom mom mais jubóowuñ wuñu seen bir ki day wax li so setlo ki day dem pour sanctionner ba pare correct est-ce que nit ñi respecté nañ ko parce que man euh. gis na mu bind ben article pour dénoncer ay Aïssatou djop Fall automatiquement le jour suivant ay Aïssatou djop Fall dafa génn ah. jëkk leen lu melni ki amna benen ministre Mansour xawmu Mansour djop la tuddo ki pas ministre journaliste Mansour djop hmm. dafa ñew taxaw xass leen xam nga man xawma lan moy seen liguey hmm. mais man dama gis l'ordre des avocats suñu jëlee dara batañoo bi suñu ko jëlee avocat yi d' accord nañ ci d' accorduñ ci hmm. seen biir néeg la keneen du dégg mosoo gis avocat bu xas la batañee hmm. magistrature huissier ñu am ordre yëpp ordre des médecins seen biir la mais fii nii ci Sénégal yéen a organisation bi su leen jaaxalee nga ne nañ dem ci les pairs hmm. mais yéenay taxaw mu jël benn décision ci une personne nga taxaw télé ne ko awma ci yow benn respect man dégg naa ko ah, a-t-il raison a t

doon wax sànq léegi nii bu ñu tegee benn kuréel ñoo ko war a njëkk respecté bu ko mm. defee ñu nekk ci biti. non xam nga les fauteurs de trouble ñi xam ne ñoo ñoo ñooy par rapport à leur média. Mm. ñooñu ñoo am problème respecté kii te tey kii soo nee su ma la defee dara demal nga réclamer ci demal nga clamer ma ci moom il faut que kooku su la waxee nga dégg mais man mënu ma seetaan nga ne ma su su ma la tooñee demal boole ma ak sama mag ma seetaan la yow nga jàpp sama xas ko ba mu ràpp lu ma lay boole. parlons de Abdou Mbow moom député la bokk ci parti euh, bokkoon ci kiiw kuréelu APR moom nag génn na ñaawlu li nga xamante ni moo di arrestation yi wala boo convoqué yi nga xam ne convoqué nañ ko euh, suñu naataango journaliste yi sa xalaat ci euh, loolu kiruku Abdou Mbow moom gis nga question bi képp ku koy posé sax da ngay reetaan tellement que parce que dañoo njëkk a jàpp ci affaire Bah la nga amu ci non l' intimidation passera pas mais pourquoi maintenant pourquoi maintenant man pourquoi pourquoi maintenant euh, gisoon fi affaire yi fu mu gënoon journalistes ñu di ba sax am ñu seen loxo mais mais ñu ni euh, ñuy

do xam fan la far ndaxte bu mu taxawé di défendre le général Moussa Fall ni ko don tàccu demb ñoo ñëw contre ko tay mhm. su taxawé di défendre Ousmane Sonko ñu ko tàccu ci Moussa Fall ñoo ñëw kiko c'est ça le journaliste. c'est à dire que yow le citoyen lambda. Mhm. do xam ku mu far. Mhm. kooku tay su ko dara joté gis nga même sénégalais bi nga xamante ni ci négam la nek dina julli ay way Touré yalla nako yalla jappalé parce que da ngay sentir c'est un journaliste. c'est un journaliste mais journaliste so demee ba nga xamante ni dañ la trouver un camp am ki lay défendre am ku lay xarab. tu n' plus journaliste je suis désolé léegi lan moo xew ñu japp non pourquoi Abdou mbo wax ci pourtant ci nguuram japp nañ jàpp nañu tej nañ nañu Walfadjri mhm. ci lu ko jarut ne nañ nangu nañ seen licence ci lu ko jarut mais su nekké ne considérer nga ne Walfadjri li muy def li baxna li lii bon parce que la perfection n'est pas de l'œuvre humaine mhm. nga jóg nga wax ci lolu taxoon sénégalais gis nga ben élan de solidarité la lañu jël mhm. joxe 1000 francs joxe 500 ñu jël ko ne dañ koy def ci ben compte qu'est-ce qui se passe Macky Sall ci soxarayam ci bon ba ca iñaan ba mu bloqué waat compte ba léegi Sénégal dem ba dañu ne journaliste yii ñoo ànd ak waa APR. Hmm. journaliste yii ñoo ànd ak waa Sonko ce qui veut dire que yi nga xam ne dañoo bëgg nekk à équidistance yem kenn xàmmeetu leen. Hmm. looloo tax nag tey suñu jàppee Pape Alé nga dugg sa biir néeg di fecc suñu jàppee keneen ki nga nga taxaw di ko dénoncer mais ban crédibilité ngay am xam nga dara soo koy dénoncer pour mu pour mu porter il faut que le peuple. peut-être bu ma xeex de il faut que le peuple porteel la ko mhm. nan la ko peuple di porté dañuy jàpp kenn gis ku nekk def la ay je dénonce ça je dénonce loolu day indi benn bruit médiatique mais mu nekkal journaliste amal diplôme bu la neex amal doctorat amal agrégation mais soo bëggee porté benn combat te kenn ci peuple bi àndu ceeg yow mhm. da nga cay wéet mais nekkal député amal alal so bëggé porter dara té kenn ci peuple bi andu ci ak yow dang ci ciy la preuve la plus palpante essayé nañ ko ci ba jaxate jëm ka médiatiser mais gis nga peuple bi andu ci ak mom parce que mëno traité nit de gor jigéen ñu né détenu politique euh, affaire journaliste yi bëgg nañ ci dugg mais le peuple ñom ñoo bëgg seen armée so seetloo même dans les manifestations xalé yi policiers ak gendarme yi la ñu gën mais suñu gisee armée ben contentement ngay am lool yalla ko def so gisee militaire bu sol ki def da nga koy bëgg yàlla moo ko def donc Abdou il a raté l'occasion de se taire vraiment borom eurobond xaw xawma, il a raté l'occasion de se taire Ñom fi liberté de la presse du ñom ñoo ñu koy wax comme ni ma ko tàmma waxee euh, kii Senghor la xawma, ma dafa mayoon euh, Ablaye Wad. Senghor je pense dafa may euh, Sidi Lamine Niass muy bind Ki ñëw Ablaye Wad ñëw may ko radio. Abdou Diouf ñëw non Senghor moko may journal muy bind Abdoulaye Wade Abdou Diouf Abdou Diouf ñëw hmm. may ko rajo hmm. Abdoulaye Wade ñëw may ko télé hmm. Macky Sall ñëw tëj télé ba nangu licence ba donc liberté d'expression du Macky Sall moo ñu koy jàngal du ko Macky Sall nampatal ci politique moo ñu koy jàngal Macky Sall ñàkk a mën a supporter wax moo tax même man picc bu ndaw su ma taaloon sama portable wax ca xol baa ngay bon mu ngi may mettre sous écoute Macky Sall mën a sipp daf boppam buur te moteewu ko ci jikko moteewu ko ci juddu moteewu ko ci xam-xam ko ci alal jékki-jékki def boppam buur malheureusement nag pour nga def sa bopp buur te amoo jikko bi amoo judd bi amoo alal bi amoo fit bi da ngay corrompre di jox nit ñi alal wut ay larme ñu lay sàmba mayaanal kon ku Macky Sall nampatal du moom moo ñuy wax lan mooy liberté de la presse fii la ñu nekk yow ñu gën Ousmane Diagne mouvement Kajkaj li ñu ko jàppee woon. Hmm. xanaa liberté de la presse dangay wax wax lu ëpp mais imité kon nañ koy xaw ma ñu jël ko jàpp ko tëj euh, Cheikh Omar Diagne nekk Walfadjri di wax. député boobu léegi gis naa ko sax mu noppi xaw ma nu mu tuddati fàtte naa ko sax man waar xaw ma jibril wa waar defe naa noonu la sant mhm. woo ko ñu waxante mu ne ko danaa la def ni jigéen kooku ne ko nii naanale ñu jël ko yóbbu instruction loolu ci nguuru kan la xewee du nguuru Macky Sall jël ay enseignant tëj jël ay imam tëj ku nekk ci couche sociale bi Macky tëj nañ la instrumentaliser sa justice ñoom ab na mbow na patt pattaaral pourquoi parce que heure bu ñu bëggee gis Macky Sall gis ko peut-être léeg-léeg ñu am seen enveloppe i kër di tey ñu taxaw ne dañuy jox des leçons de morale sénégalais yi ñoo leen wucc gis nga ñii cinquante ans sax taxutuñu jot ci pouvoir bi seeni sët ñoo mën a wax lu sénégalais yi dégg <laughs> alors doy na waar euh, ñu dem ci ponk bu mujj bi parce que waxtu bi mu ñuy dab Ange Marie mm, mm. jëmale ko rek ci li nga xam ne moo di voyage bi euh, Bassirou yi jaxaar fay jagleel ko moo fële ca Burkina Faso ginnaaw loolu aussi non mu jëkkee ko Mali ca Assimi Goïta ginnaaw loolu aussi mu euh, dem Burkina Faso sa jàngat ci loolu ak discours bi nga xam ne def na ko xam nga man dama dul nekk je ne suis pas nostalgique la colonisation parce que tubaab bi wax na ma ne Mali ay putschiste lañ automatiquement dans ma tête Mali putschiste lañ man man Mali su ma ko xoolee nan laa leen gis ñoo bokk ay sant am na kamara am na Jara ñoo bokk làng bambara bi da nga làkk fii di ko làkk foofu ñoo bokk solin dañuy sol cuub di sol cuub ñoo bokk frontière on a une même frontière kon man Mali boobu kenn mënu maa waxloo ne putschiste la muy benn mm-hmm. ñaareel bi. occidentaux yi ñoo xëy xëy rek ne waaw Mali génn génn na CEDEAO Mali ñaña ñi Mali ñaña ñaa Mali lan la fi dafut loo xamante ne nii euh, beneen pays dafu ko fi mu gën a garaaw France jël ko couvrir ko. d'accord mais discours président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi foofu laay jëm parce que xam mhm. naa ni ca discours wala nar a wax. réconciliation réconciliation voilà. pourquoi Bassirou wax réconciliation lan moo indi déjà problème warutoon a am. nee na ñëw fa pour loolu mais dafa ñëw pour waxtaan ci mbirum lépp loo xamante ne mën na ñoŋal diggante euh, pays de l'AES yi ak waa CEDEAO. waaw ñoŋal euh, ñoŋal mooy. mooy mooy mooy boole. Mhm. fu ñuy boole mooy ñàkk. parce que dafa wax ne au delà de ça aussi dafa ñëw pour lépp loo xam ne mooy ñoŋal tam seen diggante ci liggéey. maanaam atelier de travail naka noonee ak ay relation yi nga xamante ne moo war a nekk mhm. relation pour mu am foog bëggante bu sax am mhm. bu sax boobu France mi nga xamante ne moo ñu fatt amul benn dignité moo ñëwoon dindi ko nan la ko dindee instrumentaliser des président vauriens des petits président yoo xam ne Macky Sall la ak le président de la Côte d'Ivoire pour ñu ne dañuy embargo Mali ñu ne lan moo tax France ne na préoccupé de la démocratie de l'Afrique euh, euh, kii dafa ñëw illégal Tchad kan moo fa nekk du doomu président ba papa ja dee doom ja ñëw loolu du illégal France bi ñu ko laajee lan la wax non non wax ci loo xam ne beneen réew du sama problème parce que tout simplement les ressources naturelles du que Mali mom lañ soxla ñun nak suñu parti balaa muy un parti sénégalais c'est un parti africain nous sommes des panafricanistes l'unité africaine lima soxla balaa ma koy laaj France damay xol ndax Mali amna ko Gambie amna ko Guinée amna ko les pays de l'Occident particulièrement la France lolo leen di def problème opposants